présidente, monsieur le ministre, chers collègues monsieur le ministre lu bëggoon na euh, féliciter tamit gërëm la bu baax encourager la aussi euh, tudd fii tamit say qualité qualité ku oyof qualité ku humble qualité surtout ku am sens de l'écoute et qualité koo xam ne aussi vraiment très ouvert à tous les Sénégalais peu importe fi ñu bokk Euh, mën naa ko seede fii yàlla na la yàlla jàppale bu baax a baax le temps imparti bëriwul mu bëggoon commencer ci euh, goxu kii Kédougou euh, deux lycées qui s'y trouvent benn bi donc c'est le lycée de Massiremba amul électricité beneen bi c'est le lycée communal amul bloc administratif amul tamit ay laboratoire nga mun ñu ci jàppale monsieur le ministre li ci des ce sont des considérations générales comme le disait bien Jean-François Suisse. Il dit que le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera forcément demain. Et certainement, il s'est peut-être inspiré de Serigne Saliou Mbacké radiallahu anhu koo xam ni gis na l'importance en fait de l'éducation le plus important de sa vie sa vocation daf ko jox xale guddi moom lay mu jël fajar moom lay tàmmale di xool xale yu di leen toppatoo kon en tant que chef en tant que leader àdduna nekkoon ci loxoom nit yëpp nekkoon ci loxoom mu amoon kilifteef amoon sañ-sañ amoon mën-mën wante mu jël dooleem yëpp jox ko xale jël ko tuuti tànk kooku xam na ni le trans la transformation du pays ne peut se faire que par le biais de ces enfants la or actuellement on parle depuis tout à l'heure et puis depuis quelques jours je reviens et j'insiste sur la question de la performance la performance duñ ko nattee ci nombre d'écoles yu ñu tabax la performance duñ ko nattee ci recrutement yi la performance dina démb fekk ngeen fi benn régime tey jii régime bi def na lii je dis on se trompe de débat et aujourd'hui c'est l'hémicycle c'est le débat national pour le pays la vraie performance ñu ngi koy calculer ci nit bi ñuy tabax le citoyen or on ne s'est pas encore accordé sur le type de citoyen De plus en plus, c'est des citoyens corrompus, un problème d'éthique, un problème de déviance, un problème de valeur qui se pose dans nos familles, partout dans ce pays-là. Et c'est là où nous devons mettre l'accent et réfléchir ensemble sur le citoyen que nous devons produire. Et à partir de là, on décline maintenant en programme de formation, depuis la sixième, terminale, et ainsi de suite. Or, j'ai l'impression que les moyens sont encore mis en avant et continue d'être donc portée autour de ces questions donc de moyens et monsieur le ministre dafa am danger boo xam ne les LGBT lesbiennes transgenres et cetera c'est une réalité quand on va dans certains pays on voit de façon subtile ñu koy dugal ci programme de formation yi ndànk-ndànk les exemples dessins yi ñuy joxe dañuy wone góor ak góor et cetera et petit à petit xale-xale la xale soo ko jàppul à partir de trois ans accompagner ko former lu mu mënti mel après sa responsabilité la donc nit kooku ñooñu xam nañu la ñu bëgg ñoom dañu bëgg former des citoyens qui vont être tolérants par rapport à cela nous c'est pas notre vocation c'est pas notre vision il est donc important de s'entendre sur ce que nous devons former ce que nous voulons former monsieur le ministre sur la question de la performance il y a le PISA le programme de suivi donc des acquis Ça, c'est un, un indicateur de performance. Et aujourd'hui, on voit des Vietnamiens, des Polonais, des pays qui étaient donc du même niveau que nous, aujourd'hui en train de devancer la France. La France est 26 Et ces pays-là qui émergent, et nous voulons émerger, je pense que le challenge, c'est d'amener le Sénégal, pour une fois, à participer à ce concours un bon Quand on parle d'éducation nationale, il faut plusieurs portes d'entrée. Il y a l'école, il y a la femme, il y a euh, euh, euh, les femmes, les domestiques, il y a la famille elle-même, il y a aussi la rue, il y a la télévision, les médias sociaux, et tout ça impacte l'éducation nationale. Pour les femmes, je suis pour que jigéen boo xam ne am na bakkam am na licence am am na doctorat ñu mën ko may la possibilité accompagner ko mu renoncer rester chez elle pour accompagner son enfant pendant trois ans ñu fay ko quand on sur l'éducation ici c'est vraiment important ku mel noonu war nañ ko mën a valoriser monsieur le ministre les domestiques ñoom ñooy yar suma doom su dee xale boobu amul accompagnement mais liñ koy bàyyil ci kër gi on ne fait pas attention lu nekk mën na fa am donc loolu aussi je pense que war ngeen ci mën a taxaw la famille il faut indexer la performance les bourses familiales merci cher collègue Et pour l'essentiel mon intervention à la problématique des langues nationales l'alphabétisation et la scolarisation Et vous êtes un, un bon ministre, vous êtes un militant engagé, je vous connais. Et vous avez la détermination qu'il faut. Je crois que le reste, c'est vraiment euh, de s'engager dans les réformes. Le professeur Issa Sall en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'on devrait aller à un programme quinquennal d'éradication de l'analphabétisme dans notre pays. Ce programme quinquennal ferait passer la part du budget des langues nationales de 1% autour de ça dans le budget de l'éducation nationale à 3% du budget global. Ce que cela ferait 120 milliards par an, fois 5, 600 milliards. dafa am suñu benn kilifa bu wax ne bépp làkk rafet na buy gindi ci jaa ci nit xel ma buy tudd ci jaam ngor ga ñenn ñi nee nañ sëñ aadi Touré la ci des ne sëñ Sàmba Jaara Mbay xawma ma ku mu ci waaye daal lu yànj la Achille Mbembe mi président Macky Sall jox passeport diplomatique bërki démb wax na ne la question de la langue et de l'écriture est essentielle si l'on veut sauver le signe africain d'une longue histoire d'abjection et restituer à l'Afrique sa force et sa puissance propre dama gisagul ci àddina bi askan wu am développement ci làkku jàmbur euh, Nicolas Ndiaye wax na léegi ci Japon bu fekkoon ne Japon dañu bëgg am développement ci russe wala ci chi wala ci chinois walla ci wolof duñu ko am programme boobu euh, ni ma ko gisee woon mooy loolu ma wax ci six cent milliards yi bu ko defee képp ku yeewoo senegal te toll ci jàng muy ndaw muy mag di nga am ci juróomi at yi njàng mi ci war dañ koy wékk nag ci njàng moo xam ne day wékku ci xarala yi ak ci ni ñuy liggéey dañ lay jàngal bu lay jàngal ci agriculture walla ci élevage walla ci santé walla ci environnement walla ci genre walla yu mel noonu nga xam ne day am njëriñ euh, loolu dina jur presse écrite boo xam ne ci làkk yi lay doon muy presse écrite presse en ligne ouvrage de formation administration bi da ciy dugg kon la littérature l'art ay prix yoo xam ne day am prix président de la république science technique technologie portée par nos langues ak académie des langues nationales xam nga fi mu ne gars yi ni ñuy bindee suñu làkk yi ci miir yi ni ñu koy làkkee sànq su am na chambre benn mbokk bu ñëw ne fii ne eh, wax benn mbir ci français daal di ne Euh, xaw ma sax nuñ koy waxee ci wolof te fekk wolof la loolu dañoo euh, waroon di wax ci wolof ba ne xaw ma sax nuñ koy waxee ci tubaab waaye boo nee xaw ma nuñ koy waxee ci tubaab ñu ree la waaye boo nee xaw ma nuñ koy wax ci wolof kenn du la ree loolu daal programme quinquennal bi monsieur le ministre yaakaar naa ne lu baax la li ci des mooy abri provisoire yi man dama wuute foofu ak gis-gis yu bare dama d'accord ci abri provisoire li ma d'accordul mooy abri provisoire définitif waaye dama d'accord ci abri provisoire parce que mënuñu retard bi mu am dafa bare bare bare ba nga xam ne mënuñu ne fokk ñuy defari salle de classe pour di ci dugal gone di nee naa dëkk bu ne garab dafay pénc ma nañ fa daje def ko classe di fa jàngale loolay tax nu régler problème bu dul loolu du sotti euh, département région Thiès xaw ma département ba cinquante trois mille cent soixante huit table banc la ñu manqué loolu bu nu nee dañu koy régler soog non du sotti du sotti voilà monsieur le ministre merci beaucoup. merci cher. ci seen avancement yi dina am solo monsieur le ministre ma ñëw ci sama département muy Koungheul Koungheul neuf commune la te benn lycée moo fa am xale yi dinañu xaw a sonn waxoon naa la ko commission ne la buñ leen mën a dimbale Koungheul ñu amaat beneen lycée loolu dina. nekk lu baax ci ci xale yi beneen bi amuñu équipement bëggoon nañ ay équipement scolaire monsieur le ministre daaw dolli ngeen leen mais bëggoon nañ aussi ngeen gën leen dolli parce que am na école yoo xam ne dañu ko tëj amul ku ci nekk moo tax bëggoon nañ aussi bu ngeen ñu mën a dimbale Koungheul ñu am ay enseignants monsieur le ministre IEF bu Koungheul nag laa foofu dama bëgg ngeen tabax ko am nañ terrain mais ba léegi kenn laalu ko te fi ñu nekk dafa xaw a xat loolu nañ nga jàppale si monsieur le ministre nga may ma ma nuyu ci sa quelques collaborateurs Nafi Gassama Ndeye Naam maa ngi nuyu sa DAG ak sa DC SG maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu sa cabinet yëpp parce que vraiment gis naa ne jox nga jigéen gëdd loolu ñu ngi la ci encouragé bu baax je vous remercie madame la présidente.